وسل على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل مصطفى على محمد سيد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 wa tabziri wa taxtiiri li yabluwuhum ayuhum axsanu amala wasalat wasalaamu ala mabuusi lhidayati wa rahma naasiri lxaqi wa naasiqi zulma munqizi lbashariyati min barasini lwayli walgumma allazi balaga risalata wa adda alamanata wa nasaha alumma wa tarakaha ala mahajati albaydaa layluha kannahariha la yazigu anha ila helikun wa ala alihi wa ashabihi ashabi almajdi wa samahati wa nawal mushahidiya alawfiya min talfadrikum almufaddala taala télévision Futur Média nu xayyikum bittaxit al islamiyya wa naqulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki naa bi ñu sant yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog seen télévision Futurs Médias nuyu leen ziyaara leen ndokkee leen bu baax a baax ñaanati borom bi subhaanahu wa taala yàlla mi am jàmm am salaam sutura àddina ak alaaxira yal na yàlla dolli nu ko defal mbokki mi ngi noonu am nañu mbégte mi ngi noonu nu ngi gërëm ñëpp ñu ngi ñaanal ñëpp ñaanal mboolem xalif généraux yi ne ci mi wér lool ñaanal njiitu réew mi ñaanal boroom kër gi Seydi El Hadji Youssou Ndour ak sunu kilifa yi nekk ci groupe Futurs Médias gépp mi ngi noonu bés yaa ngoog mi ngi noonu xew-xew yaa ngoog waxoon nañu leen lépp luy xew ci ëttu kër yi diine ji incha allahu taala dara du ngeen du leen ci ump tey jii nag ñu ngi ci téeméeri at ak fanweeri at ak juróom-ñeenti at bi mu fi taxawee ne ajibu daayallahi ya maachara al jinni wal insi inni rasulallahi ku waxoon loolu Seydina Limaamullahi al Mahdi al Muntazar at mu jot télévision Futur Média di leen dëj daj ay coono waaye itam at mu jot télévision Futur Média di dem di jànkonteeg dugg ci biir ak ci biti pour nu gën a xam kan mooy Seydina euh, Limaamullahi gën a xam kan mooy Seydina Isa gën a xam njabootu Seydina Limaamullahi daan dalal ay boromi xam-xam waaye li àdduna di ma ko laaj boobaak léegi nu ngi woote boobaak léegi ñoom itam nu ngi koy préparé laa yéen dëkkee biir réew mi dëkkee bitim réew luñ may wax euh, plateau spécial bi nag kañ lay doon kan la noo xaar maam Abdoulaye kebe lay maxtaar Alassane ak Seyni boobaak léegi defoon nañ ko daawaat jéeg daaw jéeg daaw boobaak léegi at mu bis bu ne ñu ngi koy euh, laaj ngir xam-xamam bis bu ne borom xam-xam yaa ngi may wax ni ma question yi nga ko posé woon mi ngi nuy convaincre ndax ci xam la koy teg maam Abdoulaye tey jii télévision Futur Média moom la woowaat mu ñëw nangul nu ko daja dajaat naa ci ay coono waaye cofeelam ci Seydina Limaamu jiggi na dayoo ñaanal xalifa bi Chérif Abdoulaye Thiaw Laye mu yàgg fi lool te lool ak njabootu Seydina Limaamu Laye gépp mbokk mi noonu ñu ngi nii di waajal appel bi incha allahu taala adduna bi yëpp xel yëpp ñu ngi ci Seydina Limaamullahi al Mahdi al Muntazar sunu gan nag ñëw na Cheikh bi maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar maa ngi am mbégte lool. ci dalal la fii télévision Futurs daaw la ko ñaanoon ne yàlla yàlla may fekke déwén hmm? déwén bi nu ñaanoon yàlla daaw mooy ren kon yàlla nañu yàlla may mayaat nu fekkee waat ay at yu bëree bëri euh, Cheikh Mame Abdoulaye Kébé Laye Makhtar maa bismillah bismillahi rahmani rahim <coughs> alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki wa iyyaka nasta'in ihdina siraat almustaqim siraat allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ddaalliin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin alfaatihi lima ughliqa walxaatimi lima sabaqa naasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim mujtamiuna alkiram asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit ñi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. di ñaan ci kàntun yàlla baaxu bàyyi laay yàlla na yàlla nangu suñu jotaay te gërëm ko balaa ñuy sori ñu ngi nuyu nuyu bu tedd suñu xalifa suñu wasila suñu yaakaar tey ak bu ëllëgee di Seydina Alhaji Abdullah di ko ñaanal yàlla na ko fa yàlla yàggal te wéral ay cëram di nuyu njabootu baylay gi yëpp euh, di ci tegtal rakkam ju baax Mouhamadou Mokhtar ca Cambérène 2 di ci tegtal toftal Mouhamadou Bassir di imam bu maanu boobu Mouhamadul Amin di suñu wayjur maam libaas laay di borom xam-xam bu yaatu bu rafet bi waaye imam Mouhamadou Mokhtar suñu xarit suñu wëlëre nit ku baax ku tedd ku diiñ kooku ku sagal diine jooju ak njabootu baylay gi yépp ci diggante góor ak jigéen mag ak ndaw waaye di nuyu it euh, général Baye Ndiine di nuyu sama sëriñu bopp sëriñ Cheikh Mbacke Lay di suma wasila di suma xarit di suma sëriñ Chérif Idris ak Seydina Limaamu Laay mu maam Ibou Sini Laay ak njabootu Baye Lay gi yépp ku lim juum di nuyut nuyu bu tedd nag ñu nuy déglu ñëpp ak di nu seetaan waaye di nuyu ki ma dalal jëmm ju tedd jii ku baax ku yiw kii nga xamante ni macha allah góor góorlu na ba réew mi am na ñëpp ndax fu mu fekk fu mu nekk rek lu baax lu rafet dong lay wax moom lay jëf boole këru diine yëpp saa su ne mi ngi ñaw kuy seetaan ay émission am di ko déglu xam ni benn yitte la am mooy lislaam bi. doxewul tariixa dundew ko lislaam bi daal moo ko ñor te it ku ne xam na ni fa mu bokk ak ka yàlla booleel boroom cër la waaye ku fa am cër la waaye teewul El Hadj Pabaan foo ko fekk rek ci këru diine yi da wax ni foofu nga foofu la bokk fa la dëkk ndax rafetalam ak mbaaxam yàlla dimbali na ko it looloo ko waral nit ñi def ko ci seen xol sopp ko ndax nit moom buy dox lu baax di ko wax nit ñee leen di bëggal seen bopp kon El Hadj nga xam ni ñu féete di Cambérène ak Yoff ak xolu laayeen yi ku leen xor xar fekk la ci ndax sa taxawaay kon ñu ngi lay ñaanal yàlla dooli sa taxawaay dooli sa jàmm dooli sa sutura barke Baye lay mu baax mi jërëjëf Alaaji Pap jërëjëf Lay Maxtaar am nañu mbégte euh, ñaanal ñi ne bitim réew nga xam ne appel bi bu ñëwee ñoom itam seen xel yëpp mi ngi fi ci biir réew mi seen xel yëpp mi ngi ci euh, Seydina Limaamu Laahi donte du jug seen xol ak seen xel mi ngi Seydina Isa waaye mi ngi ci Chérif Abdoulaye Thiaw Laay ñaanal Chérif Ousseynou Laay yal na yàlla yokk leeram yal na ko yàlla yeesal yërmandeem ci kawam euh, am nañu mbégte Laay Matar daaw nag dañu def émission boo xam ne bu jéggi dayoo lay doon bu tey bi nag defe naa mooy gën a garaaw ndax daaw sama question yi euh, doyoon na waar mais bu ma la jox rek tontu nga ma ba convaincre téléspectateurs yi nga xam ni noo jàkkaarloo ak ñun tey am na ay question yoo xam bind naa ko benn bu ci war naa ko war naa la ko laaj mais tey dama bëgg ñu waxtaanee ñaar bu ci njëkk bi mooy bu nu waxtaanee Seydina Limaamullaahi beneen bi tey bëgg naa ñu gën a xam tamit Seydina Isa moom dañu wax ne yonent la euh, yonentam gi moom Seydina Isa bëgg naa ñu wax ci beneen bi si Seydina Limaamullaahi alquran xujjatul euh, baaliga alquran mujiza al xaalida alquran ñëw dëggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais dëggal mahdi yu yonent bi alayhi salaam wax na ci alquran junjoon na ko sinna limaamullahi yàlla xéewal lañu ñun Sénégal mu dëkk fii ci suñu biir réew koo xam booy tudd say mbokk boole ko ci ñii ne moom loolu am na ñii loolu amul ñii gëm ko ñii gëmunu weddiwunu am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne gëm nañu ko mais feseluñu seenuk ngëm mais pour nga décortiquer nu gën noo xamal gën a xamal téléspectateurs yi ndax fii la ñu dëkk ci Sénégal am na ñoo xam ne li ñuy munu munumee ci suuf ma koy jot di ko dégg ñu may yónnee ay message danaa la ko laaj en direct pour nga leeral leen am na ñoo xam ne ñàkk noo gëm mais dañu xamul parce que nit pour nga bëgg ko il faut nga xam ko ba noppi loolu laa bëgg man goo Seydina Limaamu kan mooy Seydina Limaamu Laahi mii tëdd fii ci yoof ñu wax ni moo ni géej gi rendul ma dëkk kooku laa bëgg maam Abdoulaye Kébé ci sa xam-xam bu sell te ma ñeme laa laaj yëg ni su laajee nga am loo li nga may wax mën a convaincre téléspectateurs yi ma laaj la kan mooy Seydina Limaamullaahi bala ma laa indil yeneen question yi ma xam ne war naa la ko posé. Ah, bismillaahi rahmaani rahim ñi ngi tàmbali ci turu yàlla di ko ñaan ci kàntanam ak mbaaxam mu suturaal nu dimbali nu ba ñu yeggale ci suñu sago. Mm-hmm. Euh, pour wax la rek Pape laa ilma lana illaa ma alamtana naka yàlla alxuraan waxee woon dafa am loo xamante ni du suñu mën-mën du suñu compétence du suñu dara waaye ñaar bu ñu xawee yër tuuti war nañoo war a mën a toog ci waxtaan ci jotaayu ormo waxtaan ba gindilu ko ci mbir moo xamante ni xëy na dafa lënt ci ay bopp donc loolu man xam naa ni ñi lay laaj ak yow loolu nga ci jublu. Mhm. man mi lay tontoo aussi loolu laa ci jublu mooy ñu leeral xel yi. Mhm. ci dogalub yàlla bi yàlla dogal fii ci sawu jant bi. muy Seydina Limaamu Laay ma dogalub yàlla bi. yàlla dogal ci sawu jant bi. waaw ndax yàlla mooy dogal pap waaw yàlla mooy dogal. Mhm. képp kuy yër alxuraan gis nga yàlla bind ci ni moom mooy lu limaa yurid. waaw. mooy aji def lu ko sopp kon dogal boo gis mu am rek dafa fekk ni yàlla moo ko dogal mais yàlla miy dogal dogalam nag am na fulla am fayda ba fa muy wéet di dogal dogalam ku ko fa naan dogal bi du sotti wala ànduma ca newu ca mhm. wéet na ca péeyam mhm. nam ma dogal dogalam su ko dogalee nag bu dogal bi wàccee ci jaam ki mm-hmm. yàlla dimbali mooy jaam bu gërëm dogal bi yàlla dogal nga nangu ko mm-hmm. ndax dafa bokk nag ci ponk yi gëm dogalu yàlla waaw moo xam dogal bu neex la wala dogal bu naqari la waaye mbiru Seydina Ali Muhammadul Mahdil Muntasar d'abord dañuy xam ni suñu boroom la dogalub suñu borom dogalub suñu borom waaw salaam ñëwul wax ni ñun waxulunu ko ni yàlla moo la yónni yonent nga waxalul moo waxal boppam ni yàlla moo ma yónni ci nit ak jinne mhm. xëy na wax ji dina diis ci yenn bopp yi pour ñu mën a comprendre loolu mhm. ndax dañuy wax ni comme ni ma ko fi waxee woon yonent bi kat génn na àdduna rob nañu ko ba pare te ginnaawam yonent bu feeñee wax ni yàlla moo ma yónni dafay perturber bopp yi xel yi mais ñu leeral ni bàyyi laay waxul ni ba neen yonent laa waxoon naa ko te tubaab neen la répétition elle est pédagogique. ah moom wootewul ni beneen yonent laa. wootewul ni baneen yonent laa dafa ne man a woon démb ci ñu weex ña man la yàlla dogal ma feeñaat ci ñu ñuul ñi. Ah. loolu la Seydina Limaamu Laay Mahdil Muntazar wax. Mhm. daal di nag wax waxam. ni bu ngeen gisee ci man jëf ak jikko ak wax bu wuuteeg bu Muhammad bàyyi leen ma te it képp koo xamante ni yaa ngi yër téere yi di yër bind yi xam nga ni mbiru max yu moom ñëpp d'accord na ni max yu am na. waaw ñëpp que d'accord na ni Mahdi yu buy ñëw day ànd ak Isa. Mm-hmm. problème bi kay mooy ñun fi mu feeñ xëy na ñun ñoo xeeb der bi mu feeñ muy der bu ñuul xeeb fii mu feeñe muy sawu jant waaye en en unanimité ñëpp ànd d'accord ni max yu ak Isa dinañ ñëw ci mu mujjug jamono. boo demee ci réew yu arab yi. Mm-hmm. ña nga fa dog ay xabru naan bu Isa wàccee fii la ñu koy rob kon ñun bu ñëwee am max Mahdiyu yemu ca mu ànd ak Isa dëkk ak ñun feeñ ci sawub jant ñun dañuy téye ci Mahdiyu ak Isa boobu ba keroog ñuy gis beneen Mahdiyu boo xamante ni ñëw na ci jamono ànd ak Isa. mais ndax alquranul karim junj na sidna limaamullahi ngeen jàng ko euh, ak ci euh, borom xam-xam yi am lu ñu seede ci moom. ñoo xam ni wér nañu ak gëm seenu xam-xam ñu wax Seydina Limaamu ngeen ngeen jàng loolu décortiquer ko pour téléspectateurs yi mën a xam loolu. waaw mais bien sûr Pape. ma wax la ni même alxuraan bu fekkoon ni indiwul mbiru limaamul mahdi du te ñàkk kaa indi sëriñ Cheikh wax na ko l'autre jour sëriñ Cheikh lay hmm. du tere loolu war a doon lay ci weddi bay lay ala rawatina nag bi ko alxuraan indee samp ko. mais même bu ko alxuraan indiwul woon. bu ko alxuraan indiwul woon. kon alxuraan indi na ko. bien sûr mais dama ni même bu ko alxuraan indiwul war nañ ko nangu. que yàlla moo ni yonent bi. wa minhum sallallahu alayhi wa sallam alquran laa lay wax waaw demal ca sootu Ghafir wa minhum man xasasnaa alayka wa minhum man lam naxsus alayka gis nga yore am na ci yonent yi ñoo xamante ni man yàlla maa la jàngal seen histoire nettali la ko ci alquran mhm. am na ci yonent yi yoo xamante yi nag man waxuma la dara ci seen histoire indiwuma ko ci alquran indiwuma ko ci dara wa minhum man xasasnaa alayka wa minhum man lam naxsus alayka mhm. kon buy limaamu ñëwul woon ci alxuraan it alxuraan junj ko it loolu waru mën a dàq yonentam ndax am na yonent yu alxuraan wax seen histoire mhm. am na yonent yu alxuraan waxul seen histoire mhm. mais sunu limaamul mahdir muntasar bii alxuraan la ba mu tàmbalee ba ni mu jeexe dégginu alxuraan moo ci nekk mhm. gaa yaa ngi rawante ci ci ci niveau bi ñuy déggee puisque déglul baat bi kii dafa woote. waaw ki woote kan la limaamu lu mu woote mooy nit ak jinne nañu ànd ak moom ñu jaamu yàlla ndax yàllaa ko yónni mu yonent ci nit ak jinne baatu daa bi ngay dox ci a daj ci alxuraan léeg-léeg du foo fekk daa rek woote la lay firi ah. woote lay firi déedéet am na yeneen yu dul woote am na yeneen mën na tekki maana yan baneen baneen maanaa boo xamante ne du woote comme ban waaw kay jërëjëf loolu sawar naa si boo demee ci alxuraan yàlla wax na ni wa iza sa'alaka ibadi anni mhm. fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani ah kooku du du du woote. loolu firiwul woote. déedéet xam nga lu muy firi. Mhm. mooy bu la dee laaj ani sama borom. ani mhm. sa borom neel sama borom a ngi nii na leen. dara taxul mu jigéen leen lu dul bu leen ka ñaanee. mu may leen mu may leen. daa ah. boobu woote ñaan lay firi. waaw waaw. on est bu baax. soo demaatee ci baneen waaye di nga ko diggat ci baneen façon nu mu waxee istajibu lillahi wali rasulihi wali rasulihi iza da'akum ah, lima yuhyikum daa boobu woote lay firi bële ñaan la bi woote la ñaan sootu Mariam mhm. an da'u li rahmani waladan wa ma yanbaghi li rahmani an yattaqiza waladan daaw daaw boobu mu indi foofu ci sootu rahman firiwul ñaan firiwul woote. xam nga lu muy firi askanal. an daaw ña ngay li rahmaani ñeel yàlla wala dan doom te booba dañu fàtte ni wa maa yéen bëgg li rahmaani ay yattaxiza wala dan. allahu akbar. ni ko dégg nii dëkk ne dëkk ne bokkul. Pape il yi def attention ci alxuraan. bokkul bokkul parce que wax nga ma ñett yoo xam ne benn bokkul ak sa morom. benn bokk sa morom te ñooy bindin. Mhm, mhm. il faut gars yi def il faut faire très attention. parce que alxuraan bii ñun ñëpp ñoo ci bokk te on est d'accord que ni laa ya'lamu ta'wiluhu ilallah dëgg dëgg yaxi alxuraan. yàllaa ko xam yàllaa ko xam. mais alxuraan jamono mu koy firi. waaw bu jamono yegsee moo lay firil alxuraan ba mu gën a leer ci yow jamono jënk ko woon démb yemul ak jamono ji nga ko dégg tey. moo tax Seydina Mohamed waxoon ne siiroo seera zamanikum. mi ngi noonu dox leen seen dox yi nu jamono. ah kii kon nag on est mhm. Mhm. donc nga dégg ci benn mbir. El Hadj Pape lii alxuraan baa yëg nga alxuraan laa yaa ngi ci boo xamante ne ku ko jàng boo ko gëmee saa su ne bés bu jot nga am laa yaa ngi ci boo xam ni soo ko gëmee di nga am bakkar maa Abdoulaye ban aaya la. bis bu jot nga jàngal laa aaya ci alxuraan jàngal rek jàlla de. mais yàlla li mu wax ci alxuraan yëpp dañ ko war a gëm. waaw d'accord da koy gëm ndang ko. waaye doo ko gëm ci sa bi lii ma lay wax nii boo ca tolloo ci laay yi masala yi ma la yi ma la bëgg a jox du looy gëm ci sa biir xol da ngay jàng rek romb. waaw waaw waaw. man naa la ci jox ay tegtal. comme. <laughs> alxuraan waxul yadullaahi maxluula. wa waaye yéefar yi dee ko waxoon yàlla. yéefar yi waxuñu koon. waaw yàlla di ko nettali rasulullah. yàlla di ko nettali rasulullah. waaw ni ko yéefar ne woon nan ma sa loxo bu. këtt bi bu këtt bi. waaw maanaam da nga nay da te yàlla ni wala wu xan ni wa antum. fuqara ani ban julit moo sañ a boobu yéefari ni yàlla danga nga nay nga koy gëm. ah yéefari de ko rasulaay ne ko sa yàlla ji daa waaw loolu julit bu ko jàng gëm ko looy am. la ah? est-ce que. ndax yàlla ay joxe mooy séddale. mooy joxe mooy seddale magasin ba bari ta soxlawu ko. waaw maa min daabatin fil ardi. illa ala lay rizquha. wa yaalamu mustaqarraha wa mustawdaaha wa kullun fi kitaabin bi. d'accord mm, d'accord naa est-ce que alxuraan indiwul ni am nañu tuumaal yàlla ni ko Isaa doomam la. waaw am nañu ko wax. amul ñu ko wax ku jàng bayam ci laaye boobu ndax sañ nga yow jullit gëm ni isaa doomu yàlla la déedéet lam yëlit di lam mu yulat kon jullit bu jànga ni isaa doomu yàlla la jàng ka rek romb de boo ko gëmee ci sa biir xol am nga bàkkaar weddi nga yàlla bu yàgg hmm. am na ci alxuraan loo xamante ni alaaji Pape Hann maag ci yem kenn mënu la ko tekkil wala ku la ko tekkil nga bañ mooy ban <laughs> alxuraan waxul taaha ma anzalna alayka alxuraan li tashqa waaw illaa tazkiratan liman yaxsha mhm. tanzilan bi man xalaqal ard wa samaawaati ula waaw lu mu ci teg arrahmaanu alal arshi istawa istawa la yàlla wax de waaw yàllaa ngi tongu ca aras na yàlla toogee toogee toogaay ba ca aras ku la ko firil su la weddee nga ni ko waay sa waay yaa ko gis noonu may man dew ma fa ba xamee noonu yàlla la toogee kenn xamu ko kenn xamu ko donc am na loo xamante ni ci alxuraan da koy jàng rek mais sa xam-xam mënu koo tekki de arrahmaanu alal arsi istawa toogaay ba yàlla tooge ci aras ak ni mu toogee El Hadji Pape man ak yow ñoo ci yem. allahu akbar. Mhm. yow mi am gan sa gan mhm. nekk ci saal bi yaa ngi ci sa néeg. Mhm. xamoo gan gi ne ci saal bi dafa dëfeenu wala dafa tëdd wala dafa courbe. mi ngi ci biir yaa ngi fee ci biir yaa nga fële. kon yàlla mi ne ci aras daan ni man kat maa ngi tongu ca kaw aras façon ba mu toogeek na mu defee kenn talew la ci. jalla jalaaluhu azza kamaaluhu jalla jalaaluhu azza kamaaluhu am na it ci alxuraan alxaaji pap loo xamante ni ba ilaa yawmi diin keneen ku ko féetale boppam su la neexee nga weddi ko mooy ban wa rafa'naa laka zikrak kan moo sañ a wax ni man la yàlla di wax rasulullah ku dul ku dul yonent bi moom rek sallallahu alayhi wa sallam wa rafa'naa laka zikrak wa kaana fadlullahi alayka azima sayyidina Muhammad ko moom ma kunta tadri ma alkitab wala al iman mhm. walakin jaalnahu nuuran nahdi bi man nashaau min ibadina wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim ko kan la ko yàlla waxoon ku dul yonent bi xawla keef yooyu kon nag alxuraan gis nga keef yooyu am na loo ci xamante ni ci alxuraan kenn du ko moomal boppam ku dul yonent bi am na loo xamante ni nag ku ko jàng jàng ka te boo ko gëmee da am bàkkaar yàlla am na doom julit bu jàng alxuraan jàng ka rek dem waaye boo ko gëmee am bàkkaar de na mu toogee ci aras ak maa ñëpp ci yem donc gars yi il faut que ñu def attention ci ñoom seen dégg-dégginu alxuraan mm-hmm. alxuraan jamono koy firi mm-hmm. yawma yunaadil munaadi min makaanin xaribin yow yawma yasma'una sayhata bil haqq zalika yawmul xuruj bés bi nga xamante ni fii ngeen di toog dégg aji woote bi muy woote ci place bu jege. min makaanil xaribin kañ mun yawma yasma'una sayhata bil haqqi allahu akbar keroog ba ngeen di dégg xaacu ga muy xaacu ci dëgg. ci dëgg moom borom bi subhanahu wa taala. ah xaacu dëgg gi. mais yonent bi dañ ko dañ ko dañ ko roboon ca Medina. waaw. mu wax ni sama cër ci yàlla jomb naa def ci sama bàmmeel ñaari fan. waaye nag bi ma jógee sama bàmmeel jéego naa jéego boo xamante ni bi ma jéegoo fa ma teg sama tànk xam-xamu doomu aadama yeggu fa. Mhm. bàyyi laay feeñ fii ci sawu jant ni mën a woon démb mën a tey. taxaw bésu dimaas kenn doxiwul kenn liggéeyul kenn tukkiwul mu takk ndigam ni ajibu daayallaahi maxsaral insi wal jinni inni rasulullah ilaykum loolu mooy xaacu ga mu xaacu woon ci dëgg alxuraan nettali na ko mais loolu kan moo ba yenn borom yi xam-xam yoo xam ni nit ñi xam nañu leen ci seenu xam-xam doyloo ko ñoo seede loolu moom Abdoulaye. wax mais ci ñëwam. mais ci ñëwaatam googu ak ni yónni gi ma yàlla yónni Seydina Muhammad ma nga ca Madinatul Munawwara uh-huh. euh, Baay Laay mi ngi fii ci Sénégal uh-huh. wax ko fii ci Yoof ne mën a woon démb mën a woon tey uh-huh. euh, ñu parce que nit ñi ñu ngi ànd ak seen sago nit ñi ñu ngi ànd ak seen xel loolu ñan dëkkoon ak ñoom dëkkoon ak moom wala nekk bitim réew sa dëkku dëkku ñoom moom euh, gëm loolu dëggal loolu xam ni lii Seydina Limaam wax moo am moo nekkoon démb waaye moo nekkoon tey mais boo demee ci Shihabuddin xam naa ko xam nga ko. liir na ay téeréem. Uh-huh. Ah, liir nga ay téeréem. Uh-huh. mais moom lu leer mais mais mais li mu wax Pape la kan nañ ko mën a tekkiloo kan nañ ko mën a firiloo ku dul Seydina Limaamu Laahi Mahdiyul Muntazar bu kee nee limaamul Mahdiyu kat dina am lu mu nuróoleeg yonti yàlla Moussa ni yonti yàlla Moussa dàqe woon géej daanaka noonu lay dàqe géej li mu xare woon géej daanaka noonu lay dàqe géej wala hu kalkali yan fali xul ba wa yaqdaru yaabisun mustahil fa muy feeñ avant muy feeñ day wow. day wow waaye bu feeñ bu wootee rek mu tooy xepp. mu naat bay lay taxaw ci sawu jant ni fan ngeen di jëlee alal ñu ñu penku fan ngeen di jëlee xam-xam ñu ni penku mu ni incha allah bu soobee ma borom alal ak xam-xam ak lu mu mën a doon dina ma fekk fii ma nekk. parce que yent ci capital lay lay feeñe bay lay feeñ ci capital bi. maa ngi lay dégg bu waxee ni yonent bi yu'tillaahu maa a'tal anbiyaa lii yàlla jox Mahdiyu mooy la mu joxoon yonent yi fi jiitu woon. waaw danaka jox lu mel ni la mu leen joxoon. wa yaziiduhu dina ka dolli. Mhm. wa yufaddiluhu te dina ka def joxal ngëneel mu doon ku gën. mais lan nan dolli Seydina Limaamu Laay ci mujj jamono. luñ ko dolli. ok c'est une bonne question. démb yonent bi yàlla ne woon ko bu subaa dina la laaj affaire ruux. waaw waaye waaw yasalunaka ani ruuxi. waaw waaye waaye looy tontu. waaye xuli ruuxu. min amri rabbi. wa maa utitum mhm. dina la laaj. ruux sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. waaye ne leen ruux sama mbiru bopp borom la. waaw maa utitum min al ilmi illa xalila mhm. mais bàyyi lay ci mujjug jamono pap da daan fekk nit ku taxaw muy la ëf nga ni kërëb su fekkee nit ki taxaw mu ni ko ëf mu ni kërëb dekki. mais loolu dafa bokk ci ay mucjizam yi nga xam ay mucjizaatam la. Ah, ndax yonent bu nekk am na ay mucjiza. d'accord ay kéemtaan yoo xam ne ay kéemtaan. yonent yi daan nañ ko def. du ngi noonu kon ñëw na ci mujj jamono fekke nit ku taxaw mu ëf la nga daanu. su ko neexee mu ëppa la kaalaam nga jokk su ko neexee mu tibb suuf sànni la nga rot te kum ko def nga doonub néew te yàllaa ke ne woon démb nag xooli roo min amri rabbi tey nag mu jox ko kon nag bu sihaabu dini wa yi wa yaziduhu am na leneen lu ñu koy dolli jàppal ci benn ci yi ñu ko dolli mooy dina fekk nit ku taxaw muy la ëf nga di këlëb muy la ëf nga jog doke sa soxla da doon def nit ni mu koy defee bàyyi ma moom Seydina Limaamul Mahdi Murtaza mais ci biir réew mi ndax def na fi ay mu'jiza yoo xam ni euh, maanaam ku ko ku ko weddi woon wala ku ko gëmul woon mu def ak yow mujiza boo xam ne tax na nga ñëw ndax sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma nekkoon ca makkatal mukarram nekkoon ca madinatul munawwara am na ñoo xam ne ci mujiza yi mu def moo tax ñu dugg ci lislaam ñii kéemtaan la leen wan moo tax ñu dugg ci lislaam ñii mbaaxam nga la leen wan moo tax ñu dugg ci ndax loolu def na ko fii ci ay réew mi nga am ñoo ma tuddal ne Seydina Limaamu am na fu mu jaar ak ñoom mais Pape loolu du jeex bàyyi laay li mu def ci ay kéemtaan su ma bëggee toog fii tey ñu ko fii wax fii la du fajar di fekk te du jeex du jeex du xàcc. Mm-hmm. mais moo tax aussi ñu bàyyi xel ci dara gis nga yonent ku ka jiiñ te du yow ku nu jiiñ te yow yàlla yitte bi mu njëkk am mooy toroxal la. waaw foor dafa foor ah. mm-hmm. foor. kun ka jiiñ te du yow. Mm-hmm. doo fa nekk sa sax sa woote di sax. Pape Ba yéen a ngi bàyyi xel ni woote bi 139e anniversaire ngeen di ngeen di ngeen di waaw bi mu wooteeg léegi. neen bu am 139 ans. waaw amul am na anglais bu ko wax liir nga ko. Mhm. neen gu am 139 ans. nekkatul du nekk bés bu jot. muy gën a mbooloo mi di gën a yokk. nit ñiy gën a sell. Mhm. jaamu yàlla yi gën a gën a sax. noon yi di gën a taxaw wooteem di gën a jëm kanam ba mu def 139 ans. mais Pape nañu xool suñu bopp. et yonent bu bu lay yàlla bu dee da nga sosal yàlla te doo yonent yittey yàlla ci yow mooy toroxal la ba adduna bépp xam ne yàlla toroxal na la. El Hadj Pape kon yàlla du jël xam-xamam di ko def ci yow te bàyyi laay bu dul yonent kon dina lu jaaxal ndax yàlla xamal na ko xam-xamu kump. xam-xamu kump. maanaam lu nekk ci xelu nit mu xamal ko. mu xam ko. loolu ci kan la ko xamale mais du jeex. daana fekk ku jàngul xamul dara mu teg la loxo ngay wax baqar ba naas jamono bu ko neexee mu teg la loxo nga mel ni musoo xam araf def na naka ba tàyyi xam-xamu kump waaw dammel sàmbalaw be faal ca Kajoor dammel sàmbalaw be waaw dégg nga ko waaw ni ma ko dégg waaw jël na mm, ab surgam yónni ko ci Seydina Limaam mm-hmm. ni ko soo demee nga ni limaamu dama gént na ma wax sama gént gi ma gént lan la da koy natt ba xam yonantu la wala du yonantu. waaw effectivement boo demee daal nekk gént na. na ma ko wax nekk na ma wax sama gént gi géntu lan la. allahu akbar. ñu ni du yonent ba pare yàlla di sol xam-xamu kump. Ah, nag moom borom rek ko xam bu ko nettaliwul. ah kay ndaw li ñëw fekk bay lay fii wax ko ni dammee la ma yónni luy tànkam nee na dafa gént mais nee na bu bëgg nga wax ko géntam gi mu gént démb tëj na boppam lan la bay lay ni que ko keroog ci guddi tamxarit bi mu reeree ba pare. Mhm. ba def safaak witaram ba pare dafa def ñaari rakk rakk bu ne jàng na ci faati ak juróomi ñaar juróom-ñaari yaasin sëlmal. Mhm. bi mu tëddee dafa tëdd ba guddi génte ñetti mbuusi deret ñetti mbuusi deret la gént. Mhm. benn mbuus mi moom dammeel moo ko naan ba mu jeex tàkk. bi ci des daka jox waa réew mi kajoor ñu naan ka ba mu jeex tàkk bi ci des nag nekk limaamu neen du la ci dara pour l'instant. la ilaha illallah. Hmm? te loolu la damel gént. te loolu la ndaw li ñëw wax ka damel damel ni ko wax nga dëgg nii la gént gi deme laa ilaaha illallaah. aywa mu ni ko soo demee nga ni kanam na ñaanal mu ni ko dinaa la bay lay di ko dinaa ko ñaanal julli suba ba pare daje dalaje daraje dajale mag ñi ñaan ñaanam jël seeni i kurus sànni ci ndox jël ndaw li jox ko mu yóbbu damel. Mm-hmm. bi ka ndaw li yóbboo ba yegsi ci kajoor dafa yegsi ci kajoor fekk Demba War Sàll di defar sàkket bi mu nuyu ko mu fay ko mu ni ko ndawlu li maamu la moom yónni ci dammeel mu ni ko nan jàdd fële nga xéewlu ba pare doog a yegg ci moom mm-hmm. ba ñu fa yeggee mu jox ndaw li limaamu yónni woon mm-hmm. berneel ko jox ko mu ndékki bi mu tegee li ko limaamu yónni woon dam euh, Demba War Sàll daal di jël ca saafara sa limaa mu joxoon joxoon pour mu jox ko dambeel mu naan ci ba mu digg mu njarkaak ndox ba mu fees def ko ci ndab li tëj bi mu dekkee pare mu yóbbu ko ci dambeel ni ko am nga gan limaa moo ko yebal ca saw dafa guddi taxu noo jox yaa ma wax ne dara uh-huh. bi mu ñëwee mook dammeel ñu nuyoo mu ni ko limaamu ma yónni mu ni ko limaam mu ni waaw fekk bàyyi laay nee na ko coonam bu njëkk ba boo demee toogal rek dëkk ma sa nopp wax ka position bi muy tooge mu nekk ca Kajoor Baay Laay nekk ci Yoff di ko transmettre mission muy wax muy dégg. te booba yii xew nii ci ay téléphone xew fi bi mu di wax ci soxla muy muy ndaw bindul bataaxal jox ko télégramme amul wax di ko wax ndaw mu nekk fii ci yoof mu nekk ca kajoor bàyyi laay di ko wax la muy wax dammel mu koy jottali mu koy jottali te limaamoo ngi yoof naka la jëlee ndab li di ko jox rek dammel di xëccoo ndab li rek ndab li tuuru daal di tàkk dammel daal di ni ah man ndaw li maa ngi koy yónni mu indi ma saafara saafara si tuuru di tàkk daal di koy teg na le xam nga olof dafay wax saafara su jur jàngoro. waaw. ndeke ndox mi ci. rax Demba War Sall rax. waaw moo waral saafara si takk mu teg fa mujj ko naan ba mu demee ca xale ba naan ko rey. dambeer wa moom dambeer dambeer euh, Demba Waar makka naa yoon daal di mucc mu jël gëleem yónnee li maam mu taxonoo jóg dafa guddi bàyyi laay def nga loolu ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne di ko wax ci jotaay Pape Pape Kaju ci bu doon kéemaan li ci limaamu def ci àdduna kenn defu ko ci jóge na géej mhm. gëti ba ñëw waaye yoof gépp toog ci tefes gi parce que tey moom il faut nga waxtaan nañu ci Seydina Limamou incha allah mënul ñàkk mënul ñàkk ñu gën a xam kan mooy Seydina Limamou incha allah lay jox bàyyi nga waxtaanal ñu ñu gën a xam Seydina Limamou incha allah toog ci tefes mhm. bi mu toogee ci tefes gi bàyyi laay teer ak gaalam woote pour ñu jàppale que mu aj gaalam ci kaw mool yépp toog di ko seetaan ñu jékki-jékki rek génn gis genn gi ndax gu yàlla yónni mu fekk fi gaal gi dóor ko dóor goo xamante ni ñëpp ni ginnax gi doole gi mu ànd mhm. àndal mhm. dóor gaal gi ba aj ka ci kaw te gaal ga dammuwul yàquwul fa climat mu yóbbu woon te kenn jàppale ko yàlla yónnee na ko vague bu ko fa yóbbu allahu akbar kenn mu dem Seydina Limaamu Laay Mahdi mhm. wax naa la ni bu Musaa na dugg ci biir géej bu génnee jàpp jën wu mool xamul turam bàyyi lay bu duggee biir géej bu gëtee wala mu mbaali bu ñëwee bu bu teeree jën wi muy indi mool du xam turu jën woowu ci jamonoom jamono bu géej musaana naqari bu limaamu taxawee jël tànkam yi teg ci tefes gi ba mu laal ba mu laal ba mu laal ndox mi bu wanee ginnaaw géej jën yi teer ndax di xeeñtu jeexitalam tànkam lay teg ci tefes tànkam lay teg ci ndoxu tefes bi jën yi ñëw buy wane ginnaaw jën yi di ko topp ndax di xencu jeexitalam di ko ziar. Allahu akbar kii bu fekkoon ni dafa sos nubuwaam ji ndax yàlla dina ko dooleel ci yu mel nii. déedéet. sidna limaamul mahdir def na ni. na may. dama ni El Hadj ku nekk def na kéemaan. Mhm. mais li bàyyi lay def kéemaan ci àdduna kenn defu ko te kenn musu koo def keneen da du ko def. Mhm. lu tubaab yi man ci moom. moo ni leen woon eh ñu ne ah. tubaab yee fi ne woon. mais moom bokkoon na ci ñi tubaab yi jàpp. dinaa ci ñëw tubaab yee fi ne woon. sonal mag ñi sonal réew mi. bari doole tubaab bari doole bàyyi laay ni du fi génn te dinaa leen fi jële keroog ba mu jugee gore ba mu jugee gore. Mhm. ndax gore bi bàyyi laay di dem ñu koy jàpp di ka fa denc boobu tuddul woon gore béer la tuddoon. béer béer. Mhm. dégg nga suñu waykat ni ba maam demee taaxi béer. Mhm. booba béer la gore tuddoon. ba mu génnee gore keroog nii la def loxoom loxoom bu tedd bi nii la ko def nii. def nii te ku ne xam na ni yorent bi loxoom bii def na ci lu ne. sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw waaw. kéemaan gu ne yorent bi démb ba mu weexee def na ko ci loxoom bi bàyyi laay nii la def di def nii. mag ñu ni que limaamu lii mooy lan mu ni tubaab jeex na fi jël naa tubaab yëpp sànni leen ci àll ba lépp luy rob rab bu bon jëlee naa ko ci saw bi sànni ci àll mais ci at mooma ma ca topp ma topp ci leen jël tubaab bi di leen affecte benn benn ñii jëm il dem ñii jëm Martigues ñii dem Guadeloupe ci jamono boobu. allahu akbar loxo bii lu ne def nak ci kéemal soo demee ca Cambérène génn góor nga fa gu ñuy wax góor gi Alaaji Mbay mhm. bàyyi laay daka ni cas ci loxoom yéeg ak mhm. dem ba ca Kaaba nga wërloo ko ko mu tawaaf ko mu ne ko waa cas indi ko. góor gi ni ka limaamu tey fi nga ma yónnee sori yóbbu sori na de mu ni ko danaa la yóbbu fu gën a sori foofu. allahu akbar ni ka cas naaw ak moom ba sawara góor gi nee na gis naa mu jël dugg ci biir sawara génne fa nit xittali ko mu ne waat ka cas dugal ko ba àjjana mu visité ba neex ya fa nekk bàyyi laay ni ko bu ëllëgee yàlla nandatal ko sama xeet bi kooku magu walimata maam la ci walimata mbay mi nekk présidente daayira bu Serigne Cheikh Mbacke. allahu akbar bàyyi laay defal na ko ci loxom bi. loolu bokk na ci ay kiimtaan yoo xam ne si na leen. képp ku mu sa feebar bu la bàyyi laay tegee loxoom bu tedd bii nga wér. ci loxoom bii la daan sole ku ko soob. xam-xam xam bii la daan teggee xam-xam ko soob moom Seydina Limaamu Laay Mahdil Muntasar damay la nattu bu ne nattu nañu ko bàyyi laay bàyyiwuñu ko tey ba woote bi toll fii mu toll rek ñu bàyyi ko sagoom ñam nañu ko seet nañu ko ba tey yaa ma waxtaan loo ci limaamu waaw am na góor gu jóge dëkkam xam naa ko dama koy bañ a tudd ñëw ba jam ñaajo jii tey mu jël gëléem yamu mu àndaloon muy ñetti gëléem ci jamono mu soppi leen ay janj xam nga jànj janj waaw montagne yu ndaw yooyu rek yu ndaw yooyu soppi ay gëléemam jànj ñetti gëléem mais mais mais kooku kon nitu yàlla la nitu yàlla bu mag a mag a mag a mag mm-hmm. ku dul nitu yàlla mënu loolu déedéet woo taalibe bi que soo demee ci limaamu ci sawu jant nekk dama tukk woon yegg si ba fii samay gëlëm réer ma nekk dama seetal samay gëlëm fu mu ne bàyyi laay ni ndaw li soo demee ne ko bu génnee néeg bi mu dal wanag wa mu jàkkaarloo ci diggante néeg beeg wanag wi mu ne ah mu ne que na jël kaala sàmba sembeem gi mu kaaloo ñetti danki suuf ya fa nekk benn bu ci ne na ci dóor kaala gi bu ci ko dóoree di ay gëléemam dana feeñ góor gi ni bërit génn def li kalimaam waxoon jël kaalam sànni kaala gu mu dóor mu doon gëléem gu ni bërit jox laa ilaha illallah seen alimaama def na ko allahu akbar mu ne ah mu ne ko waaye Pape histoire bi jeexul fii ci jam ñaajo fii ci jam ñaajo la ko góor gi defee woon xam naa ko ah xam nga lu mu wax bi bi gisee kéemaan googu ni ay gëléemam feeñ na xam nga lu ci teg waaw soo demee nga ni limaamu na ma jox sama addiyey maam waaw ndaw li ñëw ni limaamu mu ne ah mu ne ka nee na jërëjëf gëleebam yi feeñ na. te da ko doon nattu ci gileem bi ba xam moom la doon nattu ko doon nattu di xool ba xam wala du moom moom la fu mu toll da ko doon nattu mm-hmm. nekk sama ay gëleem feeñ na mm-hmm. mu ne ah mu ne waaw mu ne ko waaye nag nee na nga jox ko addiyey maamam ah keroog nag la bàyyi laay toll ci àll nag ba mu ko tuddee addiyey maamam nag keroog la tulli maam mu toll ci àll oh. wallahi bàyyi la ba ma jox sama addiye maam jox sama addiye maam ci la bàyyi lay ni xalit mel ni ku xaw a xotti yéreem jël weedam wii naj ko. Mhm. naj naj naj naj ba mu dànk mu ni ka cas lu mel meew génn ci dawoon cur ba ñëpp xam ne li génn ci limaamu meew la loolu kéemaan la. allahu akbar mu ni ko eh mu ne ah mu ne soo demee nga ne bu fi ñëwee fii ci man danaa ko nandatal ci meew mii ba mu xam ni ku ma ci gën a yaay newul ci kaw suuf. allahu akbar limaamu def na ko. oh. Seydina Limaamu. Sey Thiaw laay sama am mais waaw. du moom. mais dama bëgg a wax ni. Uh-huh. li mu def ci ay kéemtaan bu ñu ko bëggee wax fii du ñu fi jukk. ndax ay kéemtaanam moom. ndax ay kéemtaanam. ku ne xam na ni yaatu na. Mhm. te kéemaan nag mu'jiza nag pap wàllu yu ko def yonent moo koy def. parce que yonentu euh, dina def karama. Oh. waaye mu'jiza yonentu moo koy def yonentu moo koy def. wala yu karama lay def. dëgg mais léegi nag tey mënul ñàkk nga waxtaan ci Seydina Limaamu parce que dafa am ku ni ma euh, ñun laayeen yi dañu man ñun dañu am problème parce que ñoom bu fekkoon dañu ni benn yonentu la ñu am ñu mën a comprendre ne benn yonentu la mhm. mais ñoom ñaari yonentu ñaari yonantu loolu nag am na ci ñoo xam ni lënt na seen xel jaaxal na leen ñu ni Seydina Limaamu Laahi yonantu la ba pa ñëwaat ne Seydina Isaa mii tëdd Cambérène ñu nu la lool tamit bëgg naa nga leeralal ko téléspectateurs yi. Mhm. kan mooy Seydina Isaa di doomu Seydina Limaamu Laahi denc ko fii ci Cambérène nekk xalifaam yonantug Seydina Isaa laa bëgg it euh, maam Abdullahi nga leeralal na ko. et puis compliqué wul Pape compliqué wul dafa loo xamante ni nag ma koy laaj dama la koy laaj. Mhm. sidna Isaa Ruhullaahi démb ku doon ndeyam. démb Mariam. Mariam. Mariam waaw. ndax amoon na baay. Isaa. Hmm. déedéet. amul woon amul baay. Seydina Issa démb alxuraan moo ni wa maa xataluuhu wa maa salabuuhu wa maa salabuuhu walakin subiha walakin subiha lahum mhm. waaw loolu alxuraan la moom alxuraan la d'accord si mooy Seydina Issa waaw mu njëkk ma Jésus Jésus waaw kenn rayu ko kenn waaw maa xataluuhu kenn rayu ko waaw kenn pendru ko kenn pendru ko walakin subiha lahum waaw dañ ko nduróo léeg ka ko bëggoon trahir ka ko bëggoon trahir alxuraan yeeg bal nee na bal rafaahu laahu ilayhi ilayhi waaw yàllaa ko yëkkati. yàllaa ko yëkkati yóbbu ko ca kawam. waaw. bal. yéen ñi jàng grammaire. arfu istidrak istidrak la. Uh-huh. wa atfin. Mm-hmm. bi maanaa lakin. laakin lil istidrak mi ngi noonu. li fi bal di taxaw. laakin dafay taxaw laakin dafay taxaw. fi ah. laakin di taxaw bal dina fa taxaw. laakin li fi nekk bal li fi nekk nag. mi ngi noonu bal. arfu istidrak yàllaa ko yëkkati mais pap yàllaa ko yëkkati. waaw kenn reyu ko. déedéet. Issa. ma xataluhu d'accord nga ni ah, Issa ci ulul azmi la bokk. waaw ndax cinq lañu. ndax cinq lañu. Nuh Ibrahima Moussa Issa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw ci ci ulul azmi la bokk. ulul azmi la bokk waaw. Mariama mooy yaayam. waaw. yàllaa ko yëkkati. moom yonent yàlla Isa moom yonent yàlla Isa. alquran li ngay wax waaw. li ma wax alquran. waaw waaw mais pap ki yëkkay war na wàcc. waaw day wàcc. dafay wàcc. waaw yéeg de waaw. Issa xemme moon na mbiru limaamul maxdiw ba ñaanoon boroomam bu ëllëgee naka boole ci kur kuréelug Seydina Limaam yéen jàngkat yi nangu ngeen ni Issa bu ëllëgee. maryam mi doon yaayam soxna lay doon ci soxna yi. rasulillah rasulillah. waaw Asiya Bintu. Imran ah Imran waaw. mais Pape bu Issa dee wàcc. ak yàlla kàntanam mag yàlla civilisation am est-ce que day solal Isaa ay boto mag ay grand boubaam mag ay mantoom mu jóge juróom ñaari asamaan ñu koy séen ñu naan ma nga ne weesu na première asamaan deuxième asamaan troisième asamaan ba nee na cëpp sama waykat nee na dañoo xamul maanaam kaw ga muy jógee leen jaaxal Isaa oh. <laughs> Isaa ndax yaayam ndax yaayam ëllëg yow ëllëg aljanna soxna lay doon ci sox ci soxna yonent soxna rasulullah maa ngi lay dégg nag yonti yàlla yaa ngi may yoon yonti yàlla isaa daa di ñëw doon ñu ni woon bu max di yu ñëwee mhm. dafay ànd ak isaa imma isaa day doon doomam wala mu doon surga bu mu yar ci këram mhm. bàyyi lay ñëw jur doom isaa yi isaa yéegoon à l'âge de 33 ans 33 ans ci la dem ci la dem waaw Seydina Limaamu ñëw ci mujj jamono am doom tudde isaa mu waaw Issa wuutu limaamul Mahdi à l'âge de 33 ans yi mu yéege woon. non Seydina Limam bi muy dem Seydina Issa ñaata at la am. 33 ans. yeneen ti bay wax ci hadiis ni Issa dina wuutu maam dina wuutu Mahdi yu 40 ans Issa wuutu na limaamul Mahdi yu 40 ans. allahu akbar. parce que yaa ngi may dégg baax na yonent bee ko wax ci hadis ah, ni Isa dina wuutu Maadiw 40 ans ñun Isa mii ñu am xaw ma baneen de ak keneen ku am Isa ak Maadiw de mais ñun bii ñu am wuutu na limaamu à l'âge de 33 ans. toog na fi bi muy bi muy jël xilaafa gi 33 toog na fi ginnaaw limaamu 40 ans yonent bi waxoon. mais tamit am na ndax am na lu mu waxoon ci Seydina Isa mi. mais bien sûr bàyyi lay dafa ni woon alayhi salaam. bu àdduna desoon benn bés kese kese kese. waaw yàlla dina taaw taawi bés boobu. guddal jant bi du fenk mukk fekk sama isaa mii màggul ba toll ci at yi mu war a toll ba yeggale sama woote bi ma yàlla yónni. loolu Seydina Limaam wax na ko Seydina mu ko wax te xam nga fu ko fu ko bàyyi lay jëlee. da ko waxoon démb wax ka tey. ah bàyyi laay limaam Mohamed dafa waxoon loolu démb bi mu weexee. waaw mu ñëw wax ka tey bi mu ñuulee. subhaanallazi asra bi abdihi laylan laylan minal masjidil haraami ilal masjidil aqsa lazi baaraknaa hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu samiul basir sara alal buraaxi fi muntaha lahumu jaa alxilaafu faraaji julla kut bihimi allahu akbar mais yonent bi ba mu rañaane Seydi Hadji Malick wax loolu de Seydi Hadji Malick wax borom yaa xaay sal bax maa ngi ci ñëw yonent bi ba mu rañaane jóge dem ci boromam ñëw bi mu yegsee nee na waa màkk ci yàlla laa jóge waaw ñu ne ko waaye yow bàyyi sa wax ji muy ci yàlla laa jóge de ñu ne ko diggante fii ak bayti maxdis un mois un mois yow nga ni dem nga fi biig ñëwaat biig ñëwaat biig yow seetal sa bopp mu ne waa màkk pour ngeen gëm ni dem naa démb ci soo boroom ñëwaat daje naa genn gawar goo xamante ni ñu ngi ñëw seen gëléem réer ña ngi koy seet bés sàngam la ñu yegsi allahu akbar waa màkk ni ka lan mu ni ka daje naag genn gawar pour ngeen xam ni demoon naa ci yoon wi daje naag gawar goo xamante ni ñi ngi ñëw seen gëléem a réer ña koy seet bu ñu ko gisee ba sàngam la ñu yegg si bi ñu toogee màkk di xaar gawar googu ñuy seet gërëb ji feeñul yàlla xam ni bés bi yonent bi waxoon jublu na te gëléem gi feeñagul yàlla taawi jant bi ndax bañ ko rusloo moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xëcc jant bi jant bi bañ a fenk yàlla xëcc jant bi rek jant bi bañ a fenk xëcc jant bi jant bi bañ a fenk ba gëlëm ji feeñ mu méngoog bés bi nga xamante ni ci leen yonent bi ni woon ci la gaawaar gi di yegg si fekk gëlëm ji feeñ na ba mu ko ka defalee démb nag ndax bañ ko rusloo moo tax mu bàyyi lay am dëgguwaay ren ci yoonum bu mujj bii daan ni bu àdduna desoon benn bés te xale bii màggagul yàlla dina téye jant bi guddal ka taawi ko ba mu màgg ba toll ci woote mu woote wutuma sama gannaaw. moo tax bi muy dem Seydina Isa am fanweeri at ak ñett. 33 ans fanweeri ak fanweeri at ak la am Seydina Isa. nekk xalifaam. nekk xalifaam bàyyi laay bi muy ñëw dafa indi dëggoo ya naawe woon ma yenu leer yaag suñuy roo bàyyi bi muy ñëw ay yonent ak ay ñëpp kañ topp ñoo xamante ni yàlla li nëbb. Mhm. wa iza axaza llaahu misaaqa nabiyyiina. Mhm. lama ataynaakum min kitaabin wa hikma. suma jaakum rasuulun musaddiqun limaa maakum la tu'minuna bihi wala tansurunu qaala aqrartum wa taxastum ala zalikum isri qaalu aqrarna qaala fashhadu wa anna ma'akum mina shahidin eh yonent bi dama koy préparé waat ah. te ci Mouhamed la wàccoon na ah. te bi yàlla waxee loolu yonent yëpp d'accord nañu d'accord nañu dina dina ñëwaat ci mujjug jamono de ndax yéen ñëpp bu ñëwee di ngeen ko dëggal di ngeen ànd ak moom toppal jàppale ko ci mission bi xaalu aqran na xaala kon fashhadu wa anna ma'akum mina shahidin kaay leen ñu seede ñu tamponné moo tax déggoo ñun suñu waykat boo miinee suñu géew. lu mu ci ngay xamante ni ci ci lii ma lay firil nag ngay xam Seydina Isa taxawaay bi mu am ci limaamul Mahdiw ci ulul azmi la bokk daka ni kuréel bu yiw bi faw ngeen. muy muy waa kër limaam. waaw waaw bu yiw bi fawxa ngeen. ku dul yonent ñeena leen li jiitu tey la yàlla noon di ngeen su joot ci Mamadou allahu akbar muy Mamadou Limamul Mahdi dégg nga bu baax kuréel bu yiw bi faw xa ngeen mu ni ko ku dul yonenta ñeena leen li jiitu tey la yàlla noonu di ngeen su joot ci Mamadou déglul mu ni ko sa Limaamu woote na mhm. balan bi yaay wóolu ko yaa roohu laay jiitu nga ca limba leeri Mamadu yonent yooyu yàlla waxoon ba ñu d'accord roohu laay moo jiitu ca limba mu ne ko ca limba leeru Mamadu waaw ca limba waaw ñu ne ko mais Isaa mii ci la bokk mhm. mu dëgg la mu ne ko la tànn ngay nabi moom Seydina Isaa moom ngay nabi ngay seen ngëneel ginnaaw ndabee liggéey nga am ngërëm lëmbeel sa ñaari leer ya jolli na mooy seen ngëneel ñoom yonent yëpp ginnaaw Muhammad ah. ñu ni ko mais libaas ñang ki ngay wax nii kan la ak position bi mu am ci limaamu mu ni giñ naa ci laawu kii boroom Seydina Isaa mi ibnul Maryam yaa di moom yàlla la tànn doo moroom ñu gëm lu wóolu ñoo ta Seydina Isa boobu position la am ci Seydina Limaamul Mahdi bu Muntazar loolu moo tax mu wuutu bàyyi laay at yi mu ko wuutu dégg Serigne Mor Ndiaye Sam xam nga ko déedéet Serigne Mor Ndiaye Sam wax dama Tijaan la Serigne Mor Ndiaye Sam mhm. Mhm. dafa ne maam Seydi pour dëggal li yorente bi noonu ñeent fukki at la koy wuutu mhm. mu ne doon na baayam adalay adalay filaami te naa mindee fi nanu gëm te jaam adalay am ñeent fukki at la wóotu limaamu na yonent bi ne woon dina wutu limaamu ñeent fukki at te bi muy dem fa démb mi ngi am ans. mu mu jël xilaafa gi ci 33 ans wuutu mu wuutu bàyyi laay 40 ans yonent bi waxoon. Ah. dégg nga Serigne Cheikh sama Serigne nam ko woyee. nu ko wax du ma sax wax Mor Ndiaye sëñ Mor Ndiaye ndax. ku xaaraani da nga amul Serigne Cheikh Mbacke. dafa ni roohu laay ñëw na seede. Mhm. wuutu njiin àdd lay am. delluwaat tas jëmmam ja ngir dëggal maam li maamu. loolu sëñ Cheikh wax wuutu njiin àdd lay am àdd lay am laam. 30 la yaa 10 10 muy 40 ans. noonu euh, la ko Serigne Cheikh moo wax moo ko moo ko wax nii mhm. moo ko wax maamam. moo ko wax maamam. wulaay ñëw na seedeem wutu nji na dalay am delluwaat tas jëmmam allahu akbar mbokk mi noonu ak télévision Futurs Médias maam Ablaye Kébé Ngok yaakaar naa mboolem ñu toog. ci seen biir néeg toog seen i saal jàkkaarloog télévision Futurs Médias tey bëgg nga waaye itam am na loo yëg rawatina njabootu Seydina Limaamu Laay gépp rawatina jullit yëpp moo xam ak foo mën a bokk foo mën a yaakaar tey jii am nga beneen jàngit boo xam ni euh, dinga nga ko jàngat ci Seydina Limaamu Laay ak Seydina Isa toogaat la nag taxawaat seetlu euh, mais Seydina Isa da ma wax dem na démb 33 ans tey yor na xilaafa gi. 40 ans bi mu koy jël 33 ans la bokk ci ulu azmi ndax moom dafa sàkk woon ci bi mu nekk ci ulo azmi yi limaamu nekk way juram wala ngëneelu borom bi subhanahu wa taala bu yàlla defal sidna limaamu muy yonent ba noppi jur doom joo xam ne yonent la. sidna Isaa moo xemmem mbiru limaamul mahdi bi ko yàlla wane mu ñaan boromam. ci kuréel bii day gis naa ko bëgg naa ne xemmem naa ko naa ci bokk. Ah. mais Pape. mais Pape parce que parce que Aïssa démb kilifa la ci ulu azmi la ulu azmi d'accord naa Pape. yéen ci parce que ci yàlla génne. waaw génne 25. d'accord juróomi nag ñoo jël premier. mu ñu ulu alxuraan ni fasbir kama sabara ulu azmi mina rusul. waaw Pape bi yonent bi dina ñaan asamaan su ñaata malaaka la ñaata yonent la fa fekkoon. asamaan bu ne. ñaata yonent la fa fekkoon. non premier asamaan xam nga Adama fa deuxième asamaan yonent Yàlla Isa troisième yonent Yàlla Yusufa quatrième yonent Yàlla Idrissa cinquième Haruna sixième Moussa septième Ibrahima Isa ba mu wàccee nag bi mu wàccee fan bi mu wàccee waaw dan doon bañ fa mu nekkoon vide ndax xamoon na ni Isa dafay wàcc ah. Issa. waaw Alhaji Pape bu ñëwee fii ci mujj jamono te nga di ma ci ulul azmi la bokkoon. waaw. mu war a julli ci ginnaaw li maam war a doon xalifaam topp chariam. Mhm. xam nga ni boobu Issa bu ñëwee ci mujj jamono wàllu yu mënu koo jur. ah waaw. yonent. parce que la. yonent la bokk ci war a a doon doomu waliyu déedéet doomu yonent rek la war a doon kan ci yonent yi du ko mu maaseel garaat ku këpp garaat rek ko mën a jur muy. muy Seydina <laughs> waaw parce que juróomi kenn jël premier. ok mooy rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam. ku mu maaseel garaat waru koo jur. déedéet. wàllu yi waru koo jur. ah bu dee ku mu maaseel garaat ci yonent waru koo jur kon wàllu yu saful di wax yonent rek ka war a jur ban yonent woo ko war a jur mooy ka weex woon ñuul rek pap mooy dogalu yàlla bi. sayyidina Limaamullaahi Mahdi Muntazar. allahu akbar. mais foofu tamit comme di nga ñu mosale ci Seydina Limaamu tuuti ndax mës mën nga ñu waxtaanal tuuti nag euh, ci Seydina Isaa pour. nu gën a xam euh, kii tëdd ci Cambérène moom tamit ndax si naa limaamu fii mu tëdd fa la waxoon ni géej gi rendul ma dëkk mhm. bokk na ci ay mojisaam te ba mhm. tey ba tey géej gi ñëwagul mhm. mais euh, Seydina Issa tamit bëgg naa nga am loo ñu ci waxtaanal ay jeexitalam moom itam nu xam ko am na ay question ñu ma ñu may laaj fi mu toll nii a ñu may envoyé ay message euh, posé lu ñu ko question bi yooyu tamit dina am yu ma la ci laaj incha allah waaw mais Pape euh, Seyna Issa euh, bi mu ñëwee ci jamono la mu doon def démb rek la doon def. la la defaat. ndax moom def na ay kéemtaan moom Seyna Issa. waaw mais parce que Baye Laye dégg euh, dee na mu dekkal la. am na ko sant Silla koo ma waxoon daaw. Baye ba ba Baye Mbaye Silla. Baye Mbaye Silla. waaw génn na àddina Seyna Limaamu dekkal ko. waaw yoo ak yeneen i mu'jiza yoo xam ne def na ko. dëgg la moom Seyna Limaamu mais kon yonent mooy def mu'jiza. Mm-hmm. te nee nga ma Seyna Issa mi yonent la. Mm-hmm. ndax moom def na ay mu'jiza. waaw mais Pape. ci jamonoy Moussa alayhi salaam. Mhm. njibar moo xewoon. waaw. d'accord d'accord na ci jamonoy Isa médecine moo xewoon mu avancé woon. Mhm. xeet woowu dañu xarañoon ci wàllu faj. Mhm. ci jamonoy Sayyiduna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam yi dañoo mënoon a wax mën a way. waaw yàlla indi alxuraan mu gàcceel leen. Isa. dafa def lu gën a kéemaan la fajkat yi mënoon ca jamonoom. da daan fekk néew bu ruwam dem barzak muy la kum bi isni laa nga jox mu dekkal la def na ko fi mais yun ci àlla isa démb nga ma def na ko fii sum suma isaa def na ko fii fii adduna may dégg de nit dee mu dekkal fii ñëpp na kii dee na mu dekkal ko ñëw na ci àll waaw di dox di dox di dox di dox di dox ba seen benn kaang xam nga kaang nit ku dee ba bopp ba des fa. waaw mu dox ba si àgg mu ni tekk daan ni ah lii de sama turandoo mi ñu wax ni mooy Issa fu mu mus a fekk lu mel nii wax ak moom. te kooku yax yi dem na. dem na ba mu des bopp. ba mu des bopp kese fii. waaw mu jël bant bi ni ni bi ni ko jaam yàlla bi mu ne am ah, mu ni ko looy def fii mu ni dekket ni ko man kat sama xel a tàqale ko nag man. muy yow may génn rek di dox. dugg ci àll bii xiif ak mar jàpp ma ba sama ruu des fii lii ma tëral fii mu ne waaw sama turandoo day démb daana def lu mel nii def na ko fii tey naa Issa mi àdduna ak may dégg de. ana kooku dekkal na ko. dekkal na ko déggoo bopp bi la dóor jaam yàlla bi looy def fii sama turandoo kat démb ku musaan fekk ku mel nii mu wax ak yow lu lay indi fii mu ne ka sama xel moo tàqali ko woon ak man ma song àll bi dugg ci biir xiif ak marama jàpp ba sama ruu des mu daan waa bu dakay lii day fukk sama turandoo fekkoon defar. allahu akbar. ah du ma ci du ma ci du ma ci du ma ci sori. baayu Cheikh ñan mooy baayu naa ñan bi ànd ak Serigne Cheikh Mbacke di ko wayal. Seyna Ñang bu xaar yàlla. Serigne Seyna Ñang bu xaar yàlla mi ngi may dégg baayam. waaw cok bu metti ba génn àdduna. farak Seyna Issa ngi nii de. dees na deelu sotti mu ni ko këpp këpp këpp këpp dugal ci biir yére mu wëndeeloo moom ni ko jugal dem. mu jug dotti soxlaam Seyna Ñang ngi lay dégg boo demee nga woo foofu rek ci ñaar yooyu rek laa yem Pape ndax guddi nañu wax ci la de te xam nga seenaa naa yaa ma ne bu xaar yàlla. bu baax moom laa lay wax. mbokk mi noonu yaakaar naa dégg nañu moom Abdoulahi la mu ñu joxoon daaw ren jii tey jox nañu beneen bu ko gën a jéggi dayoo. ci nu gën a xam Sidna Limaamu mais gën a xam Sidna Isa ñu ngi fii li xew ci ñi mu xewee seeni mbokk ngi fii. kéemtaan la dégg na dayoo mais mujj dund si na Limaamu Laay mujj dundam mujj dundam daal mujj dundam ak ndénkaane ya ak mook mag ñi mag ñi nga xam ne ñoo newoon ci réew mi moom ma sa tubaab yi la mu def ak ñoom mais mook mag ñi nga xam ni euh, ay lébu lañu ak ñi nga xam ne duñu ay lébu dëkk fii ak ñi dëkk ñi dëkk Kajoor dëkk Waalo ñi ñi nga xam ni mujj dundam jëflante na ak ñoom ak mujj dund si na limaamu loolu daal bëgg naa nga am loo ñu. Alaaji Pape mujj dunduk Seydina Limaamu mooy mujj dunduk Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam benn benn benn dund bi rek la moo wax ni mën a démb mën a tey yàlla nag méngale ñoom ñaar seeni ay mbir Alaaji Pape Hann Baay Laay alayhi salaam la daloon Seydouna Mohamed démb moo ko dal. Mhm. génn na laataa muy génn àdduna moom Seydina Limaamul Mahdil Muntazar fii fii it gi muy mujjee julli dafa bindalu lettre wax ni fu taalibe nekk naka fekk si taalibe yëpp rek rek ku nekk ñëw yoof julleeg moom ko ni daal la daawu ko sol lu dul bés yooyu bisu fet ñu yenu sang bi yóbbu jàmmalaay la muy dox lépp mi ngi naan mag ñi waaxu leen nanu nanu baral tànk yi ndax ku leen waxoon ni julli gii may julli néew moo koy julli ngeen weddi ko ndax dara desul ci man waaye moo tax ñun ñu war a ñu war a dolliwaat suñu pas-pas ci gëm Seydina Limaamu ci julli gi mu mujjee julli fii mag ñépp taxaw xam nga dafa ni yàlla moom a yónni ci nit ak ne waaw ñii ñëw gëm. am ñu daam am ñu am ñu bañ. mu mu bàyyi ba tiim ñi ko gëm ni bu ngeen gisee ci man jikko ak wax ak jëf bu wuuteeg Mouhamed bàyyi leen ñu koy seetlu di ko bàyyi xel ñu toog mu dem ba dara desul lu dul mu wuy ji borom rek boromam rekk moo des. korite gi muy mujj julli dajale taalibe yëpp mu ni leen ku am dërëm booy jox Mouhamed tegal ci sama loxo Pape kii li mu woote ñi mel ne ko de. mag mun ni li ngay woote du dëgg danga koy sosal sa borom te mag looy woote bu budul dëgg ci yow boo demee ba nekk salalu sukuraat xanaa nga war cee dellu gannaaw. mu ni ku am dërëm booy jox Seydina Mohamed ku am dërëm booy jox Seydina Mohamed. tegal ko sama loxo mag ñi nee nañu bàyyi maali mbay moo ko jox ñetti dërëmi nguur do keroog ca jamono jaayante ak moom mu ni bu demee yowmal xiyaam bu ma ma ñël jël dërëm bi ñu ànd ak yéen ci Mohamed ñu jox ko. bu ngeen gisul kaneen ku dul jëm sama jëmm ji ngeen xam ne jox ngeen borom dërëm bi dërëmam. allahu akbar loolu la waxoon loolu la waxoon. julli waar nit ñi waarin wu rafet ñu daal di jëlaat ñaari mbagga yi ñu ngi koy yóbbu ndeysaan këram. loolu mu ngi dundam la. mu jug dundam. allahu akbar. ñu koy yóbbu këram di ko delloo la daloon Mouhamed ka dal. ruwam dem na àllaaxira fu guddi toog na ñetti fan kenn robu ko ñaata fan lañ toogoon kenn robul Mouhamed. ñetti fan ñetti fan. altine lañ doon màkk dem talaata àllarba ci guddi. ñu koy doog a rob. waaw lu ko lu lu lu waraloon. min min daxsatin axaru min daxsatin axaru daf na nabi. waaw wala istixaalihim. man yu walla kal amrihim. waaye nag fi xawlil ashari. waaw an na daf na. waaw laylatal arbia kañ la xew. fii mhm. jaww fi layli fadri waxta kimi tey Seydil Hadji Malick mu bàyyiwul dara. Seydina Limaamu alayhi salaam toog ñetti fan kenn robu ko ndax Seydina Mohamed bi mu génnee àdduna xalifa bi ka wuute ndax fekk na génn àddunaam. déedéet ma nga woon ci sulhu aliya. fa la ka fekk. te mooy aéroport Médine. mooy tey jii ca soxnaam sa di Habibatu. ci fi mu toll nii. ka ko mooy ci aéroport Médine ba d'accord naa ak yow. da doon seetal. waaw fa la doon seetale. Seydina Limaamu bi muy génn àdduna xalifaam bi ka war a wuutu fekku ka fi. Seydina Isa mi ngi woon ngaa xam. Ah. ndax Seydina Issa dafa war a wàcc pour ñëw jullee si limaamu bay laay moo moo créé boobu confusion seen ñaar mu mën seen diggante mu génn mën a dem ngaa xam ngaa xam ca kajoor la waaw kuy dem ngaa xam dangay ngay yëg ku jige kajoor booy ñëw da ngay wàcc mu ñëw uh-huh. pour wàcc Seydina Limaamu fekk labbe yi fii ci yaraax mi ni dañuy xaar Issa ndax tey lay wàcc juróom-ñaari asamaan sëy naa Issa ni cëpp ànd ak Baye Mamour ni leen ñii lu seen taxawaay bi lan la làbbe yi ñu ne ah ñoom de nee nañ Issa tey la jógee juróom-ñaari asamaan mu daan ni eh, Baye Mamour ñun ñii ñu tudde Issa day nanu tefesu nii rombale te def fii ci yarax mu ñëw fekk Seydina Limaamu ñetti fan kenn robu ko mu def discours ba Ababacar defoon mi doon xalifaam waaw Ababacar bi mu ñëwee ubbi kanamu yonent bi lu mu ko xatibta hayyan wa mayitan hayyan wa mayitan Seydina Isa bi mu ñëwee ni kallit kanamu Seydina Limaamu gi bàyyi mu dumub suñu woykat wax na ko wa jaddakal barqi nuural waji yaa ajaban mislal mirayi fil waji samsi multazimi nee na bi ma ubbee kanamu Seydina Isa gi Seydina Limaamu Seydina Isa nee na leer gi ci nekk dafa mel ni jant bu nu jël seetu dëkkmal ko ko ma ni yaa tey ci sa dund yaa tey ci dem di nga dem la Seydina Bakar waxoon rasul moom la ko waxaat def même discours ku fi sama baay indi woon sama baay dee na waaye ku fi yàlla indi woon yàllaa ngi fi te du jóg. allahu akbar. discours ba Ababacar defoon. man kaana yaabudu Muhammad fa inna Muhammad qad maat. waaye man kaana yaabudu fa inna laa hayyun laa yamuut. allahu akbar même discours la def. Mm-hmm. ci xale bu am fanweeri at ak ñett. yor boobu responsabilité mais fekk fi mag ñi tamit fekk mag ñi. kàngam yi daroon si saxaaba yi ñu taxaw muy leen ku ci bëgg a jullee sa baay da ngay bàyyi ba sa baay doon dee tudd Mahdi yow mi ko jullee war a wutu nga tudd Isa yéen ñëpp sama gannaaw à l'âge de 33 moom fit di jàmbaar pap boo nee jàkk jëmmam ji xam ne du jëmmi neen ak mhm. caractère geeg fulla jeeg fayda jeeg mat gi bàyyi laay daanaka junj junj mag ñi de yar leen seeni doom ku ci yarul sa doom boo liggéey dinaa doon waxambaane fanweeri at ñett te bu boobaa ku mën a taxawal di nga taxaw. am na lay lay junj. kii mooy Seydina Issa Ruuhu Laahi mu taxaw ndëkk ak mat tubaab yi fi nekkoon ci réew mi respecté ko lu mu mësa ñu def ko kenn mësu ko yëpp kenn ak fu nu ko mën a woo ñaari meteelam gi kaalaam gu weex gi ñuul gi du dañ ci kawram. mais kaala gu weex gi gu ñuul gi loolu loolu tamit. Euh, waaw kaala gu weex gi gu ñuul gi du dara mooy méteel la rek limaa moo feeñoon démb moo feeñ tey sibxatallaahi wa man axsan minallaahi sibxa hmm. ndem yàllaa mën a cuub ay der. ay nit ñee mën a cuub ay yére ñuy soppi ay couleur ba léegi sa soxna sax bu ko neexee fekk weer deetoo ko xàmmee ma sama yàlla billaahi du problème am pour mu cuubaat beneen dette bàyyi laay rek daan defal boppam danaan bàyyi bu ko ci yàlla musaani xiir ba ñëpp toog mu xaaj mu xaaj yaram bi ñaari yoon ñaari xaaj bu ne muhammadu rasulillah yaram yu ànd weex tàll bu ne limaamul mahdi yu yaram yu ànd ñuul kukk bàyyi laay def na ko ba tey macha allah moom meññ Seydina Issa mi ngi noonu si na li maama ngoog nga bi ma ko laajee alxaj maam Abdullahi li ma ko wax mooy ñaari yonant Seydina Limaamullahi ay Issa waaye gis nga fi mu jaar ak nun xam-xam nangu na ko xel nangu na ko li mu wax ak nun ay saa ngi fii ma nga tëdd Cambérène Seydina Limaamullahi al mahdi al muntazar ñu ngi fii ci yoof réewum Sénégal la yàlla jaglee lee loolu euh, ma Abdoulaye góor gi am benn góor tey taalif lu bari rek tey taalif tey way Seydina Limaamu salaam dafa naa gay la sant Mamadou Saxiir mais ndax mën mënu doo ñu ñamal tuuti rek ci ay li Mamadou Saxiir wax Seydina Limaam wax ko Seydina Ayse loolu daal téléspectateur daal ñoo ni ma ñaanal ñu ni ma ni mu mënee waxtaan yenn saa yi mu waxtaan ba ci digg ba rek wayal ñu tuuti ci Seydina Limaamu loolu la noonu nga koy teelloo noonu daal Seydina bëgg naa daal parce que lu ñu may ñaan la euh, téléphone baa ngi lu ñu may ñaan la mais sa soppe yi nekk Amérique euh, ñu ngi lay nuyu bari nga fi ay soppe ñéegi ngi euh, am nañu ne Cincinnati ñii ngi Seattle ñii ngi Washington ñii ngi North Carolina ñii ña nga ña nga New York ba waa Philadelphie ñu bari ñu may envoyé mais waa Europe partout dans le monde yi ma defoon ak yow daaw boo fa demee Euh, cofeel gi nga xam ne am nañ ko ci yow te itam ñu ngi lay séentu ah ñu ngi lay séentu rawatina waa waa Amérique wa rawatina waa Amérique am na ku ma ci yónnee message ne ma ñam waxal ñu xam naa ma ab Ablaye neexoon nañu ñamal ci euh, Mouhamed Sakhir Gaye yi mu tuuti rek ci li mu doon wax seen alimaam. Ah, Pape da ma tudd sama sëriñ ah ku ma dé ku gis. nga laaj ma loolu dinañ xam ni tudd nga ma ku sori ci man. ah Pape tudd nga ma ku sori ci man. Mhm. tudd nga nitu yàlla. tudd nga ku sell. tudd nga ku bari xam-xam tudd nga ku dëddu àdduna. mais moom lu ne wax na ko si na li maam lu ne wax na ko. du ma la dugal fenn. xaa mhm. la ma waxoon rek. Mhm. dafa ni gars yi nan seetaat suñuy xam-xam. te seetantal bu baax. ndax ñu xam kan moo di woon di yu muy njiital anam. allahu mu ni ñoo ni woon Mahdi yu Isaa yi doon jaraafam moo di doon. naayibam moo kay julleeli am na ñëw leen seet maam dégg nga. est dañu am ñetti waykat pap libaas ñang Maali Mbay Momadou Saxiir ku ci nekk dafa am noo woye ba ci Momadou lay dir mhm. ku ci nekk dafa am noo woye Serigne Cheikh añ ci li ñëw ci nekk am nga noo woye si Serigne Cheikh Mbacke moom moom day day taalif yoo ah déedéet Pape Pape donc déedéet kooku bokk ci <laughs> kooku bokk ci Pape yàlla na yàlla yàggal taxawaayam te dolli wéram hmm. libaas ñang olof nga nu feeñe bis ni ki tey olof laa naam pa la ba tey olof nga nu feeñee. bis ni tey. olof laa nampee. way la ba tey kon feeñe woon naka ci na neen nu dul olof. feeñe woon naka ci na neen nu dul ci li mu namp. wolof nga nu feeñe bis ni ki tey wolof laa nampa way la ba tey. <laughs> Oh, uh-huh. liggéeyal yàlla moo gën a yay. ñu sant la noo ca kon kon libaas ñoom noonu la waye waaye déglu déglu Baye Baye Baye Mali Mbaye. Baye waaw xam nga lu mu ñi ngi naan jooju waay fu wolof. wu jàngul tus ñi xamul danoo réer mu ni laaj leen ka bàyyi libaas mi ma yóbbu woon di waa gis nga kuy bàyyi libaas maam li maamu ah. ay mbokkam da daan tëgg waaw di band ay mbokkam naan waa mii kii lii kañ la dugal kii moom nga xamante ni tëgg rek la fi nekke woon mu tontu leen ni mu naan ñi ngi naan jooju waay day wàlli wolof moom Maalim Mbay te jàngul tus mu mu naan ñi jàngul tus nee na da ma xamul dañoo réer mu ne bu ngeen bëggee xam jàng naa wala jàngu laaj leen ma bàyyi libaas maam Limaamu Laay mi ma yóbbu woon ca diiwaan. allah Baye Mani Mbaye moo wax lii. moo wax loolu Mamadou Sakhir nag bi mu ñëwee jàngkat yi fi newoon ci jamono mu nekkandoo woon ak Maroc. ñii nekk keer ak i Koweït ak ci kenn xamul. waaw ñoom la Saxiir doon waxal déggoo mu ni gaa yi nan seetaat suñuy xam-xam. te seetantal bu baax. Mm-hmm. ndax ñu xam kan mox di woon max di yu mi njiitala dégg nga mu ni. ñoo ni woon Isaa Seydina Isaa waaw mooy jullee Mahdi am na jullee na ko de jullee na ko waaw mooy doon naayibam moo nekk naayibam ñoo ni woon max yu Isaa yi doon jaraafam moo di doon naayibam moo koy jullee lii am na ñëw leen seet li maam téere ko waxoon mhm. mu indi leen loolu kon sëñ Maodo Saxiir sama sëriñ noonu la waxoon noonu la way mais Cheikh Mbacke Laye mayal ma tuuti rek ci moom it li mooy euh, maamam Sina <laughs> parce que parce que Cheikh Mbacke moom euh, euh, xam naa cofeel gi am ci moom xam naa yëg-yëg bi nga am ci moom loolu moom loolu moom wér na ma wér na ma mais mënul ñàkk nga waxal ma ci moom ñaari bay baat rek ñaari baat yu mu wax maamam yu tedd yooyu ne Cheikh dafa Laay anta saydi alamina seydina limaamu laay anta saydi mursali ndeysaan loolu la ko wax ndeysaan <laughs> moom it wax na lu wax na ko maamam su ma yëgoon indi moom it wax na ko maamam waaw lu ne wax na ko maamam mbokki mi noonu am nañu mbégte maam Abdoulaye Kébé yaakaar naa Laye Makhtar tey mboolem ku jàkkaarloog télévision Futurs bég na mboolem ko jàkkaarloog télévision Futurs Médias am na yëg-yëg yaakaar naa kenn du doyal ci moom boo ko woowee bu jikkiwee xam nga la ñu waxtaanee woon daaw bokkul ak li ñu waxtaanee ren loolu mooy xam-xamam bu tedd loolu mooy xam-xamam bu sell waaye itam loolu mooy mu Abdoulaye nangoo gëstoom ndax nag téere yi moom kenn moomu ko euh, yitte rek ma la ma mag ma waxoon ne pas bi max am ba tabax janji bu gaa yi amee ñoo noonu pas-pas la ñu song rek daan ko waaye ma am Abdoulaye saa yu ñëwee rek mu tegal la ay argument yoo xam ni di ci mën a dundaat ba déwén ak jàmm daaw doxoon nañu loo xam ne yaakaaroon nañu euh, bu daaw ba dootuñu amati euh, plateau bu nu mel waaye yaakaar naa ñëpp bég nañu d'accord ni bu ren bi moom moo gën a jéggi dayo xam naa foofu la ñoo taxawandi ma Abdoulaye am na la ma fàtte Hmm? am na lu ma fàtte de. am na lu ma fàtte. Hmm? dañ ma envoyé na la ko laaj. waaw dañ ma waxoon dafa bu jugee ci rasulullah ñëw ci hmm? na Isa mii. te Seydina Isa yaakaar na bi mu génnee àddina ak léegi amagul téeméeri at ah yonent bi bi mu demee léegi am na junni at ak ñeent lu topp ñu ne am na lettre bu jugee ci yonent bi ñëw ci Seydina Isa mii loolu nit ñi dañ koy wax nii wala lu am la. loolu tamit bëggoon naa euh, nga leeralal ko téléspectateurs yi maam Abdoulaye. <laughs> mais Pape jërëjëf jërëjëf mais je pense que cette question là sa ça va pas me prendre même une minute pour répondre ko puisque nekkul lu lu diabolique lu dis mais mais loolu ndax am na. am na am na bu wér. lu waral lu waral loolu lu waral loolu. am na bu wér tampon jugee na ca Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. en 1920. ñu yónnee ko Seydina Issa Rouhou Laye fii ci Sénégal. loolu naka la amee ak naka la ci jotee. ci tënk dafa am lettre bi Seydina Issa bindoon benn mag ci réew mi. waaw. bind ci lettre bi fa min Seydina Issa Rouhou Laye ibnu Seydina Limamou Laye waaw. mag mi jot lettre bi jàng ko daan ni ah waaye gone gii moo docc parce que fo woowuñu Seydina Isa ruuxu laay moo ko. moo ibnu Seydina Imaam laay ibnu Seydina Imaam laay mu ni mais mag gure gi moo dooc at ma jot waa réew mi aji mag. waaw. ñu jékki-jékki ñuy laajte délégation Afrique ba si bu senegal ka nekkoon ca jamono jooju doon garde xëbru yonent bi Serif Sadiq la tudd sët la ci yonent bi. boo toppee silsila bi. Serif mhm. Sadiq la tudd. Mmh. Mmh. Mmh. Chérif Sadikh laajte ani waa Sénégal ñu ni ñoo ngi nii ani xaadimu rasul ñu ni ma nga fa ani Seydi El Hadji Malick ma fa lim mag ñi Sénégal yi ani Seydina Issa kenn tontuwul am benn mag boo xamante ni ab Saint-Louisien la ñu koy wax góor gi Balla Sylvie Sène moo ni shérif bi Seydina Issa mi ngay wax de xawuma ko musuma koo gis waaye dégg naa turam te xam naa fu mu dëkk mm-hmm. mu ne ni bu dee da am yóbbante ci moom bu dee lu neex la di ko wax bu dee lu naqari dinaa ko wax mm-hmm. mu ne ko nee ko Seydina Muhammad moo ma jox lii nee na bu ëllëgee bu muy bind nay bind fa min Seydina Issa Rouhou Laye ibnu imam imaamu kulli imaam imaamil xaramayn allahu akbar mu ñëw indi ko 1920 la woon lii ma lay wax nii jox ko Seyna Issa muy tampon bi. 1920 1920. kon Pape lan moo ci jaaxle li ci nekk mooy Mouhamed mi nekk àllaaxira def loolu. waaw yéemi na yéemi na. man naa la poser question. waaw bismillah. xam nga Mouhamadou Bouchri. waaw. moo way burdu. du woo du moo way burdu. waaw ci burda bi mu way amul benn way wu mu door. waaw. neewul fa mablaxul ilm. fiihi annahu basharun. annahu basharun. waaw bi muy way way wii ba yegg si fii boobu ani Muhammad. ma nga àllaaxira de. ma nga àllaaxira. waaw way woowu mu way ni fa mablaxul ilmi fiihi annahu basharun. ma nga barzaq waaw. ba ba muy way loolu yonent baa ngi barzaq. kan moo yàggale way wi. Seydina Mohamed Seydina Mohamed ni wa annahu. xayru xayru xayru xullaahi kullihim kullihim waaw. kan moo yeggale way wi. rasulullahi te boobu an rasulullahi. ma ngi war sax. ah rasulullahi ma ko defoon dem. Ah. moo defaat bu Seydina Isa bi. est ce que nekk barsaax def li est ce que loolu kay warul ce que allahu akbar. tu d' accord avec mi ngi noonu Seydina Isa ngoog mi ngi noonu Seydina Limaamu ngoog mbokk yi ñu ngi fii ci appel bi di waajal. keroog bi mu taxawee ne wuyu leen woote borom bi subhanahu wa taala sidna limaamullahi al mahdi al muntazar booba ak léegi téeméeri at la ak fanweeri at ak juróom-ñeenti at bu déwénee di bu ñeen fukkeel bi yàlla na fi fekk ñëpp ñaan réew mi di réewum Sénégal yàlla def fi jàmm yàlla dolli fi barke teraanga bi nu yàlla defal mooy ñi ko dëkkee ñi tëdd ci réew mi réew mi rek ñoo am loolu amul ku ni am moom Abdoulaye am naa mbégte ci xam-xam bu sell bi am naa mbégte ci pédagogie bi allahumma la adduru yàlla bu lor jógee ci sama gémmiñ ñëw ci yow am naa mbégte euh, nit mën na am xam-xam yi dem pédagogie pour génne ko nit mën na am xam-xam euh, du am yar pour am nu mu génnee euh, xam-xamam ndax bu la ay gor di seetaan ay kilifa di la seetaan ay boroomi xam-xam di la seetaan euh, waroo wax loo xam ne dafay blessé doomu adama mais yaa ngi génne sa xam-xam te blessé woo kenn yaa ngi wax défendre sa kilifa euh, nit ñi di xam ne li ngay wax am na te euh, blessé woo benn doomu adama loolu nag xam-xam la ak bu ànd ak yar sa maam Seydi El Hadji Malick dafa waxoon ni annaasu yaftaqiruuna bi maalin wa nasabin waaye wa nahnu naftaqiru bil ilmi wal adabi nit ñi li noo woo mooy alal ak askan waaye ñun li noo procuré woo mooy xam-xam ak teggin nit dafay am yar nit dafay am teggin ndax Euh, euh, xam-xam bi la yàlla cëralee boole nga kook yar boole nga kook tabaarakallaahu euh, mën a wax lu nit ñi mën a comprendre loolu nu nga lay ñaanal tiitar nga ci kër Sidna Limaamu Laahi tiitar nga ci biir réew mi tiitar nga ci àdduna bi yëpp ndax loolu bu amul woon bu ma defee ak yow benn plateau deuxième année du ma ko def waaye man nit ñi may wax ni ma kañ la maam Abdoulaye di ñëw moom Ablaye Kébé kañ lay ñëw loolu li ko waral mooy sa xam-xam bu rafet li ko waral mooy sa teggin li ko waral mooy sa ñàkk sago ci Seydina Limaamu ak Seydina Isa ak njabootu Seydina Limaamu looloo waral mu defal la lii maa ngi lay ñaanal bu déwee ne yàlla nga ñëw toogaat am naa mbégte groupe Futurs Médias télévision Futurs Médias ñoom ñëpp xam nga ni say soppe lanu ñoom it émission bii dañu koy xaar gis nga rési baa nga fees dell tabaarakallahu ndax di xaar euh, émission bi nga xam ne nu ngi koy am ak yow am na mbégte moom euh, moom Abdoulaye Kébé yal na yàlla yokk la dëgëral réew mi ndax sa way jur kat euh, moo naan fal chef de ya ci xam-xamam ba sa way jur euh, nga donn ko ci baatin ba donn ko ci zahir ga ñaanal la it xam-xam bi la yàlla dénk yow itam nga ci la sa way jur daan def di ñaanal nit ñi am lu yàlla def ci yow nu nga lay wax it bu nu fàtte ci ñaan di la wax it réew mi nanga leen ñaanal di wax ni ñu nekk bitim réew it na leen ñaanal ndax xam nañu ni li yàlla def ci yow ñu it am na luñ ci xam bu baree baree bari Allahumma salli ala